janoo bi président de la république Bassirou Diomaye fay doon janoo taskatu xibaar yi wax ji leer na wax ji gàtt na wax ji ànd naag teggi démb Bassirou Diomaye Faye daf ñu nëbbu boppam xam nga patriote dañuy tàmm di wax Ousmane sonk yow yaay kan wax ñu yaay kan waaye dafa jot nag ñu laaj ba Bassirou Diomaye faj président de la république yow yaay kan président yow yaay kan démb dama gis ci interview bi ay point yu am solo bi ci njëkk mooy ci toogaay bi dañu tàmmoon bu journaliste yi doon rencontré président de la république ni ñuy defee dispositif bi dangay gis journaliste dañ teg ci ay siège yu ndaw yu gàtt président bi ñu tegal ko siège bu mag mu tiimu leen loolu déjà dafay développer ci journaliste benn complexe d'infériorité nga xam ne di nga xam di nga di nga di nga xaw a sax am problème booy poser nit ki question mais démb gis nañu ni nga xamee ni noonu la débat bi demee ñoom ñëpp chaise ñu ni chaise ñu toogoon moo tolloo c'est-à-dire dafa mel ni rek nga nekk ci sa kër gan boo fonk seet si la nga teg ko ci salle bi ngeen ñu waxtaan noonu la meloon. d'ailleurs fi journaliste yi toogoon sax moo gënoon confortable fi président toog te loolu dafay may nit ki la seet si mu gën a free mu gën a nekk à l'aise su ko defee bu lay poser question du ci am problème déjà décor bi rek man daf ma séduire mais dans le débat président Bassirou Diomaye Faye wax na ba pare amul fenn yoon foo xam ne di nga sentir ne c'est un politicien qui parle li débat bi di gudd yëpp mu ci wax yëpp dangay ngay sentir ne c'est un président ki parle aux Sénégalais lu rare lu rare du ne musta am de mais teguma ci bët li mu wax yëpp da ngay sentir ne c'est un président ki parle mais non pas mais non pas un membre d'un parti deuxième chose li muy wax yëpp donte dugg na ci ay dossiers sensibles mais wax na ko teggin ba sénégalais yi ñooy comprendre après biñ ko laajee lan nga fekk ci réew mi fexe na ba xamal ñu ni li mu fekk ci réew mi situation bu catastrophique la mais waxee na ko ak teggin ba sénégalais comprendre lu wuuteeg li ñoom Macky Sall defoon bi ñu fiy raam bi ñu fiy wutu Abdoulaye Wade bi ñu yegsee dañ ne fekkuñu fi dara dem nañ sax ci plateau yi bay wax ni moquette yi nekkoon présidence ak tableau yi nekkoon présidence Abdoulaye Wade da koo di dugg ci biir gox goxaat yi di nangu ay oto yoo xam ne dañ ko mayoon chef de village lu nekk def nañ ko fi mais gis nga Bassirou Diomaye fay ci teggin yi ci yar gi xamal nañu ne fekk na fi situation bu compliqué mais junj nañu ko daal di yem foofu te xam naa ne la mu xam ak la mu fa fekk dëgg bu ko waxoon boo deful ndànk Sénégalais yi dinañ jël yat dem toppi gars yi waaye ci posture am détaillam gis nga ni ko ni mu abordé question boobu ci problème mu contrat yi wax na ci lu leer ala kuli xaal dañ koy négocier waat dañ koy négocier waat mu delluwaat ñaax ñi nga xam ne ñooy magistrat yi leen eh, du ma mos dugal nag sama sama loxo ci ni ngeen di doxalee waaye nag man bëgg naa magistrat boo xam ne dafay jël ay responsabilité loolu muy discours bu leer luubal yi dégg lim ci wax nee moom jógul pour fayee fayeeku fayantoo waaye luñ ci war a càmbar rek dana ko ci càmbar ba ci gën a yéeme nag mooy liñ ko laajee digganteem ak Ousmane Sonko yaakaar naa ne ñi doon wax war nañoo tëj seen gémmiñ waxu góor dëgg la wax ku amoon looy laam-laamee ci digganteem ak Ousmane Sonko war ngaa tëj sa gémmiñ xam ne ñaar ñii li leen boole du ay doomu te loolu lañuy xaar ci nit ku gore nit koo xam ne am nga kóllëre te fi may jeexalee mooy journalistes yi fa ñëwoon ils ont été à la hauteur et vraiment li nga xam ne moom la question yi sénégalais yi amoon buggoon ko poser journalistes yi poser nañ leen ko parfaitement di ci jaaree di jaajëfal Fat Sakho gëj na génn télé waaye gis nga ko démb avec professionnalisme dirigé na débat bi sans pour autant mu def comme gendarme parce que ñun li ñu tàmmaloon mooy bu ñuy def interview ak président bi day am benn waay joo xam ne mooy taxaw fële boo bëggee dugg sax ci yenn sujet yi mu génne la boo bëggee poser question mu am nu mu lay contrôler di la da lay cëkkatal ba finalement yow la nga bëggoon wax sa doo ko wax mais gis nga débat bi démb débat waxtaan la waxtaan waxtaan sénégalais yépp nag suivre ko pour la première fois depuis Wade un président di def rencontre ak presse sénégalais yépp mu intéressé moo tax damay waxaat une fois encore que ñun sénégalais yi nañu moy ci ñii nañ leen jàppale nañ leen protéger nañ leen gunge fi may jeexalee mooy gis nga tey xaw ma ndax suivre ngeen sorti Abdourahmane Diouf ci grand jury docteur Abdourahmane Diouf mais dama ne man bu ma yoroon tey gouvernement bi docteur Abdourahmane Diouf laay def porte parole du gouvernement gis nga li jafe woon expliqué xam nga toog nañ fi naan ñoom Bassirou Diomaye Faye dañoo ñëw ci nguur gi te amuñu sax projet amuñu programme mais gis nga tey ku déglu ni mu ko tojee moo ko gën a maîtriser sax waa Pastef parce que xamal na leen ne gis nga bu dee programme bu dee projet pare nañ ko defar nañ ko te moom lañ proposé Sénégalais yi mais bañ koy proposé Sénégalais yi dafa nekkoon sous les couleurs de la coalition Bassirou Diomaye Faye 2024 léegi nag comme ñun dañoo yor réew mi mais projet boobu dañ koy jël nag def ko projet Sénégal nekkatul léegi problème mu parti nekkatul projet parti et gis nga ñaari sorte yooyu muy bu Abdourahmane Diouf muy bu président de la République Bassirou Diomaye Faye man jàpp naa ne rek doy na ci déclaration de politique générale man jàpp naa ne Sonko jarul sax muy def assemblée naan dafay def déclaration de politique générale moo tax dañuy dellu di jaajëfal le président de la République di jaajëfal le ministre Abdourahmane Diouf waxuma la dara mii boo leen déggee ñoom niveau bi ñu toll niveau bi ñuy waxee wala bu ma ne Sénégalais yi bu ñu nekkee di déglu di dégluwaat yenn opposants yi tax dañuy caaxaan parce que opposants yi dañu nekk ci ay détails biir bi ndax am na soow soow mi ndax bëri na xar mi ndax xar mu jigéen la ndax am na béjjën ci yooyu ñu nekk ci ay détails mais gis nga démb ak tey muy dis muy sorti président de la république Bassirou Diomaye Faye di sorti docteur Abdourahmane Diouf da ngay xam ne niveau bi du benn championnat yi du ñu benn léegi nag dana am ay mbéche mbéche yoo xam ne danañ génn di wax mais maa ngi ñaan sénégalais yi xam leen liy farata xam leen li leen di amal njëriñ ngeen koy déglu di ko topp bàyyi leen caaxaankat yi ngeen di topp di def seen promotion jaajëf monsieur le président mais damay jeexalee nag rendre hommage souhaiter ko joyeux anniversaire ki nga xam ne moo waral lii yëpp muy président Ousmane Sonko kenn du moom Ousmane Sonko kenn du moom li fi xew nii yëpp gannaaw yàlla loxoom la moo tax man keroog bañ ne ma Bassirou Diomaye Faye la tànn muy candidat laa ne leen bu baax bi la ndax xam rigueur bi mu am xam valeur yi muy incarné du jël ku melul ni moom ku melul ni moom du ko jël président son Sonko happy birthday yàlla na yàlla guddal sa fan nga mébét ci Sénégal yàlla na ko yàlla sotti xeex bi nga xeex depuis deux mille vingt ba deux mille vingt yàlla nga gis njëriñ bi te xam na njëriñ bi sa bopp mooy li nga mujjee xalaat waaye sénégalais yi nga ko xalaatal yàlla na yàlla antul mébét boobu sénégalais yi dama leen di waxaat mooy leen ci gars yi de gis nga bu ñu leen rëccee di ngeen màtt seen loxo wi cax ko mooy leen ci bu baax a baax a baax happy birthday président Ousmane Sonko joyeux anniversaire